beneen bi mooy président Macky Sall mu ngi waaj dem mais récemment dañu gis euh, il s'est il s'est passé énormément de choses report des élections am est si que loolu aussi nekkul du nekk benn tâche bu noire bu nga xamante ni euh, dina des ci magistère u président Macky Sall. wax mun na si des parce que man mooy li may wax rek man toujours keneen ne même premier dialogue bi yaakaar naa toog naa ci ay plateau ànduma ci yoon parce que euh, mus naa seetaan benn benn benn copain benn waay ñu invité ko mu ne sunu mag ñi dañoo iñaanee ndaw ñi pour ñu jël seen relève te li olof di wax ku añaan sa dono sa deyin ñaaw parce que njortu naa ne lii yëpp waroon na mun a bañ a arrivé président Macky Sall mhm. parce que boo xamee ne yow da ngay dem te jël nga décision defoon nga référendum xam ne conseil constitutionnel delloon na la ne munoo yokk munoo yokk sa mandat munoo wàññi sa mandat nga ñëw bi nga ñëwee nga demandé waat population sénégalaise bi ñu joxaat la 58 virgule pour cent ñu ñu amaat si yow confiance te yow leer na la ne sa kàddu boobu noonu doo ko dépassé kon warutoon toog ba yegg si cëppaandaw gi muy doog jël beneen candidat bu dul waroon na mën a leeralal kaam leeralal sénégalais yi que ne carrément moom du du dem du bokk bu boobaa réew mi yaakaar naa ne du dugg si pëccëxoo te crise euh, con euh, kii bi ñuy wax noonu man njortu naa ne man gisuma ko parce que bu fekkente ne ay député Karim Wade euh, conseil constitutionnel bi nga xam ne moo yor euh, organisation élection yi recalé na ko bu ñu demee bay woote dialogue waroon nañ woo 19 candidats yi woo conseil constitutionnel woo ministre de l'intérieur mi organisé ak moom président de la république mais ci ci dialogue bi niñ ko tëggee man njortu naa ne euh, réeral sénégalais yi la ak gën a tardeel ñi nga xamante ni mooy procédure électorale